Cheikh Gadiaga xam naa ko ya à peine peut-être deux mois xam nga man Sénégal ñëpp ma xam mais man xaw ma nit ñi ki ci des moom euh, nu mu tudd sax kooku moom démb laa ko tey laa commencé gis ci du moins démb laa ko gis ci ci photom ci laa ko gisee il paraît que moo amoon euh, ay problème ci affaire dossier Karim Wade donc ñoom bi ma defee samay analyse sax ñoom ci kaso ba la ñu xamante kon fa la ñu defaree seen i aussi alors bi ma bi ngeen amee problème ba Dakaractu ak euh, Cheikh Amar coow li bari un moom mu fekk ma teeru bi man ak samay partenaires yu fa nekkoon ma dégg muy wax ci affaire bi par sama jikko rek ni may defaree man toujours man defar laa xam xaw ma leneen moo ko ko boy tu es trop jeune affaire yooyu génn leen ci et puis ñaar ñi kii di sëriñ ku baax la kii di Cheikh Amar ku baax la da ngeen di jéem a def leen boole mais pas lu leen di yàq. il faut pas ngeen di aggraver une situation situation boobu la ñu xamante ma defe ni dana topp ligne boobu mu ne ma man dama amee site foofu la ma waxee sax ni dama amee site euh, Sénégal ma xuma Dakar info voilà un jour mu amee ma benn lien muy ma gis mu def ci Amadou Ba man ko mais yow da nga euh, fi laa ko wooyee mu ñëw man ko mais yow da nga dof yow man Amadou Ba benn sama rakk la Amadou Ba c'est un ministre de la République nit ku baax la li ngay wax nii est-ce na mu ni ma père man jànguma mënuma sax bind mënuma bind mais ki ma su site bi Paris la nekk ma ne ko ah mais li ngeen di bind wóor leen parce que Amadou man xam naa ko bu baax sama rakk la et puis nit ñi dañu war di rusante ay ay nitu république même ku dul nitu république sax dañu war a fexe nu boo ko boole nekk benn parce que ñun sama papa loolu la ñu jàngaloon ànd ak nit ku am xaalis wala doomu président de la yooyu yëpp du mérite ànd ak ku amul dara wala koo xam ne ñëpp dañ koy daw nga fexe ba mu baax loolu ci la mérite nekk ma yedd ko le lendemain mu defaat benn ma woo ma woowaat ko mu ni ma même ñoom Thierno Ba xaritu Amadou Baye de citeel ma ñoom Thierno ñoom kii ñoom euh, nu mu tuddati kii bu euh, gaje euh, comment on l'appelle encore de direct info jogay ak ñoom Paco Jackson woo nañ ma mais du déwuma mais père dama la ruus vraiment loo ma wax dinaa ko def non ñëpp la ko doon envoyé il l'a envoyé le monde ne parce que site bi kenn xamu ko moom ndekay ñëpp la ko man tey sax laa xam ne ñëpp laaj mun la ah, dama ko doon envoyé alors euh, bi loolu amee ni ko li ngay wax ni yéen wul maanaam ci laa ko wooyee ci laa wooyee Amadou Ba parce que sama rakk ne ko Amadou affaire bi métti na trop parce que yow tu es un la République li nit ñi li ñuy bind man wóor na ma ni amul mais ce gosse man xam naa ko e vraiment niit laa ko xamee xaw ma ko à fond mais man dama bëggoon mu ñëw jégalu au moins pour mu bay ci laa ko yóbbu ci Amadou Ba mu jégalu it ba mu demee ci Amadou Ba ni Amadou man mënumaa lire mënumaa jàng daal di def avo yooyu yëpp ci kanamu Amadou. non non non man yooyu bugguma sax feeñ ci affaire yooyu alors mu dem baalu àq mais pire. quelque jour après mu bind Cheikh Ba. impôt et domaine yëguma ko boobu Cheikh Ba ci boppam euh, message bi ma envoyé mi ngi sama portable. ko moom moo ma bind Cheikh Ba. pour ni ma grand man sama mag nga. et que vraiment bugguma du ma dencal dara euh, dama buggoon ñu gisee pour waxtaan ndax dafa am ay accusation ma ne ko bi ma liiree affaire bi ma téléphone jël sama téléphone woo ko. ne ko mais euh, Cheikh. ban accusation ak lan nga may bind nii bay wax ak lu xew mu ma noo damay dem Paris tey su ma ñëwee man ko non doo génn dëkk bi parce que man xaw ma loolu dañuy toog tey dañuy gisee nga wax ma lan la c'était un vendredi mu ne ma suñu julee nga ñëw sama bureau ñu julli ma dem biroom quand il m'a expliqué sa ma ne ko loolu c'est pas vrai def na ko Amadou Ba bërki man maa wax Cheikh Ba ni ko def na ko Amadou Ba man maa ko nettali Cheikh Ba ma ko def na ko Amadou Ba bërki démb mais kii c'est un fou bon yi muy def daal di ni ko noonu ko dama koy woo sa kanam Cheikh ni ma bu ko man ko dama koy woo mel ni ko wooyewul ci yow def koo parleur woo boy bi ni ko mais boy il paraît que day wóor da nga bindati Cheikh Ba ay tout ça ma mais père man génne naa ko parce que neen sax père Cheikh Ba sa rakk la man ko mais même su dul sama rakk waroo taxaw di bind di salir nit ñi devant Cheikh Ba mu dégg loolu alors bref mu jàll mais bi ma ci gën a metti mooy bi mu bind Mamour Diallo parce que Mamour sama rakk la ñëpp xam loolu mu mu bind ko sans tàggum ci laa ko jëppee waxuma ko ci dara man maa woo Mamour wax ak moom mais moom waxaatuma ak moom euh, le comble mu bindaat sama beneen rak Pape Mayel Diop man mu mel ni daal sama rak yeeg sama nit ñi daal la ciblé alors ma kii dootuma sax wax moom la dernière fois yaa quatre jours bi ma robee dafa ñëw di ma nuyu fayu ma ko mu dem maa ngi ko gis mu toog fële di wax kii parce que man ku bon xaw ma loolu man lu baax laa xam bi mu leen fi bi mu fi attaque sëriñ et tout ça noonu laa ko xeexee te sëriñ yëgu ko ni eh, keneen ak keneen ku ma mas a noonu laa koy xeexe mais kanta à presse bu génn nag defoo analyse woowoo Gaston kenn moom ma ci woo muy enquête bin ma wooyee ma expliqué leen le gars a compris e je les ai expliqué comme ni tey démb ku xam Gaston Mbengue xam ni du xeex sa xeexu boppam xeexu jaamur lay xeex damay fekk ñuy jéem a néewal nit wala ñuy jéem a yàq deru nit ma dugg ci xeex ko man loolu mooy sama loolu mooy loolu laay xeex su fekkee ni nag dañ ni nañ jéem a abattre Gaston nañ ko jéem a déstabiliser man gaa kenn mënu ma abattre. kon tentative de te peut-être tentative de parce que gis nga coow fi am ci fan yëpp. coow yi am ci côté bi fii ci côté politique côté sëriñ seeg côté nangam nangam sama dëgg googu du ci jóg la ma waxoon lu ma mas a wax lépp je l'assume maa ko wax ba tey lépp lu ma mas a wax rek ci dëgg laa ko teg maa ko wax ba tey su fekkee ni loola tax ñuy wut ay nit pour déstabiliser ma ils perdent du temps su fekkee ni su fekkee ni itam su fekkee ni itam peut-être samay lien ak le président Macky Sall ak waa ak le gouvernement moo tax seen problème la tey laa leen tey laa koy gën a jàpp tey laay gën a di leen gën di défendre su fekkee ni loolu la Amadou Ba sama rakk la comme ni premier ministre bi nekkee sama rak ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ni Aminata Mbengue nekke sama rak lan nekkee sama rak donc j'assume tout sa su fekkee nag looloo tax nag ñuy yónni wala ñuy truc et je pense même que xaw ma euh, yónnee bi peut-être que presse bi une partie de la presse la ñu yónni pour ñu déformer wax ji parce que de toute façon Cheikh Gadiaga du wax mukk ni am naa moom yooyu lien jamais de la vie pas mësuma seq ak moom mësuma ko jox dërëm mësuma jox dërëm mësuñu seq loolu tuuti na tuuti naa ci loolu mm-hmm. ñuy joxe xaalis ëpp ma ko ko lu may man ma jógee Louga ñëw di liggéey liggéey laa xam xaw ma ay jëlee ay jël xaalisu kenn ku am sa xaalis nga denc ko ku may nag sa journaliste wala nga may sa Cheikh Gadiaga wala ma Samba wala ma Demba xaalis am nga ci droit parce que journaliste yi fi nekk yëpp dañ leen may xaalis tout le monde nag am nañu ay relation suñu amee seen relation moom xaalis su leen neexee ñu may lan xaalis kooku kooku benn jour su fekkee ne loolu la kon ñëpp extorsion de fonds la ñuy def parce que ku dul jël xaalis amul benn journal mënu fi taxaw saa nga am ku lay jàppale peut-être moom ni ko wutee moo bon parce que sooy wut xaalis doo ko wut di yàqat ay deru nit da ngay ñëw soo posé sa problème sénégalais nga soo nee di jàppale leen ma ñu jàppale la suñ la mun la jàppale ñu la mënul la jàppale wala ñun la dama nga defi dossier ñu boole la ak banque wala ñu boole la mais taxaw di dóori kii xaw ma foo xamee sa nit ca prison ba ngeen xamante fa ñu def affaire parce que kii il est nuisible même à la on doit le liquider koo xam ni dafa ni jàngul mënumaa liir jànguma ñu koy même su ubbee site et jël euh, logo site bi fotom la photom la ci ni fang loolu mooy dawuma ci dara parce que jàngul moo tax mu def loolu nan ma cité ci lu ne mais ciy def lu bon kenn mënu ma cee cité ci euh, cas yu mel nii kenn mënu ma cee cité parce que ku xam Gaston xam ni Gaston day fekk lu yoonam nekkul mu ñëw di ko defar pour mu baax pour ni ñi rafetoo je pense que loolu la euh, moom yéen la fi jëkk a tooñ tooñ na fi Dakaractu yekk leen fi lu ne ba yéen a ngi tribunal yekk na ko keneen yekk ko ñeneen mooy yooyu sax yéen entre euh, du sax seen collègue parce que moom du journaliste mais entre entre ay site la ay truc mais man man man je suis un homme public ñi nuyu ak ñi ñoo di wax man ak ñi ñoo di ma poser seen problème wala seen i jafe-jafe xaw ma leen xaw ma ci ken mais man man ma la yàlla bindee noonu man maa ma ma maa fës ñëpp ma xam man xaw ma nit ñi mais ñëpp a ma xam ku ma fekk ci benn milieu ñëw nuyu ma grand euh, père dama la bëggoon a gis père lii dinaa la déglu su fekkee ni lu baax la naa ci ye naa la ci encouragé su lu bon la mën la bul dugg ci loolu.